bi sëñ Babacar dogee rek la Adama Kane ñëw li ma xam nga lu ma lay wax waxuma benn toq deret bu mu am waaye bu bu jë ñaq laa wax loolu rek laa lay wax dal di dem yoonam te wax na dëgg mu ni ma parce que dafa am ñu nu te bokkuñ ci tariqa bokkuñ ci famille waaw li leen indi ci dëkk bi xam na ko moom ko wax ci làmmiñam ma ne ko bu yeboo rek sa xel na ci daal yàlla xam na ko moo tax ba tey seen pexe caaxaan yooyu mu jur tàbbi ndax gisuñu kenn ndax gisuñu kenn yàlla xam na ko gisuñu kenn tabarkàll góor gi defar nañ ko denc ko kenn yëgul walaay ndeysaan te benn jam-jam ci parce que diggu këram jàkka la ku ko fa jullee wàcc waaw diggu këram jàkka la ku ko fa jullee wàcc moom laa wax Serigne Alioune Gueye mu soog a taf gémmiñam ni ma fàtte woon naa ko ni ma kon ma jële Serigne Moussa comme mooy imam ratib bi ba mu jullee ko ma ni ko bu koy jullee rek àdduna di tukki parce que kon dina seddi sharia waaye du seddi jolof àdduna tukki ma ni ko nañu jëli mam Mbàkke moom mi jur sëñ Babacar jur Alaaji Mansour jur Alaaji Abdu nañ ko jële mu ñëw jullee ko moo gën ndax ma jule woon Maodo ñu dem jëli Maam Mbàkke mu ñëw moo jullee sëñ Babacar kenn branché wul ñëpp kontaan yëpp daal tabarkal la tabarkal pour wax la ni la mu wax ci Adama Kan dëgg la de dëgg la borom mission pire la